alhamdulilah alhamdu mutlaqan li zatil bari suma salaamuna alal muxtaar basiril wujudi markazil asraari sirru suuni mañool anwaar ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñu sëriñ mawlaaya seydi ahmada tijaani mboolem ngërmande yi ñu ngi koy gërëmee wa ahmadu sirru zaati wa zaatu sirruha tasawala idrakihil jalduwahina bi kanzetil aw kuntu xabla taarufin taharraka min za sirri ma kaana sakina mi Mawlaaya Cheikh Ibrahim wax dëgg fa yàlla ku gis lii rek xam ne xew-xew bu rëy boo xam ne moo war a am le 3 février muy ngenteel baay li ki koy amal di sunu sëriñ muy Baye Mohamed Darame di xadimu Cheikh Assane Dème ku ne Baye Darame rek ne Cheikh Assane Dème ku ne Cheikh Assane Dème ne Mawlaaya Cheikh Ibrahim bis bi nag nekk bis boo xam ne bis bu màgg la te wax dëgg fa yàlla bis la boo xam ne adduna yëpp ñu ngi koy bàyyi xel tey boo gisee ñu ànd ak seen bii di daayratul fadli nga xam ne ku ne xam na ne daayratul fadli chaque jamono bu nekk ñi ñaa ngi dégg ne kuñ ci nommé war nga sant yàlla ku ne xam na ne daayratul fadli kuréel kuréel la boo xam ne kuréel la bu yàlla bu bu yàlla gërëm nekkul ne ku nekk rek lañ ciy nome tey seen boobu di daayratul fadli ñoom ñoo teew fii te seen la boo xam ne adduna bi ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel tey ñu teew si sunu buntu sëriñ muy Baye Darame Thierno Assane dem wax dëgg fa yàlla mu war a woo jaab yàlla yi ci li nga xam ne fu ñu ñëw wuy si ci woote bi nga xam ne ñu ngi koy woote keroog la 3 février fan lay amee mu ngi amee fële ci Medina ñu ngi ciy woo mboolem jaab yàlla yi kon su ko defee dañuy jox sëriñ bi moo Mawlaaya Baye Darame Thierno mu nekk nit ku baax nekk nit ku laabir nekk nit ku bëgg see Assane dem waaye nekk nit ku bëgg Mawlaaya Cheikh waaye nekk nit ku bëgg moo Mawlaay Seydi Ahmad Tidiane waaye nekk nit koo xam ne dëgg-dëgg kuy liggéeyal yoon te al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la soo ko xoolee rek di nga am jub boo ko xoolee di nga am dal lii nit ñi tuddee tamkil di nga ko am muy dal dëgg-dëgg borom xam-xam la ndax xam na te xamale na yar na te yare na ku yar Baye Ousmane Dieng wax dëgg fa yàlla kooku sant yàlla kon liñ def dara lu jox sëriñ bi Baye Daraame moom woo adduna bi ñëpp woo ay ganam woo ñëpp kilifa yi kon sëriñ bi bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa nabiyina muhammadin ibnu abdillah wa radiyallahu anil qutbil maktumi wal qatimil muhammadi maulana abil abbas ahmad ibnu muhammad attijani radiyallahu anhu wa an waarisi sirrihi maulana seexal islam wa saadatil anam bokki jullit bokki taalibe yi muqaddam mën nekk ci ron asamaan ci kaw suuf ñu ngi leen di oo ci oote boo xam ne ooteeb yàlla la akab ab yonantam alquran moo ñuy wax ne buñ leen wooyee ci lu leen di dundal nag na ngeen uy ji ñu leen di woo ci kan Maulana Cheikh Ibrahim bésam bi nga xam ne mooy bésu juddum bu dellu see incha allah ñu fa yéene màggal ko fale ci Medina Baye ca Daaru Rahmati dend këru gan di ci woo mbooleem nag muqaddam yi rawatina muqaddami si Maulana Cheikh Ibrahima yi ak fu mu mën a nekk ci kaw suuf waaye ñu ngi cee gën a xejjal nag mbooleem muqaddami Cheikh Assane Deme yi eh, rawatina ñi nga xam ne ñooy njiiti muqaddam yi rawatina borom fédération yi ñu ngi ci woo mbooleem fédération yi waaye di woo mbooleem daayira yi di wax ne bés bangoog suñu bés la ñun ñëpp bés bi nga xam ne moo jur mbooleem bés yi mooy bésa Maulana Cheikh Ibrahima bobu nag taalibe yëpp ko bokk ñëpp ci xem ñaay bésab nangu ñaan la bés buñ xam yaakaar la te wax dëgg yàlla biñ ko commencé màggal ak léegi amuñ sikk ci ne gisuñ ci la mooy yokk daa iman te ku ne xam na ne Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo waxoon ne maa xattu ubtu qaa'iban min rabbi bal kullu maa ubtu sakartu aw bi nee na moom mosul tàllal loxoom rek te yàlla tegul dara ci lam ci loxoom lam doon lam doon ñaan kon nag ñu ngi fas yéene xool nit ñi képp ku mën a jàng alquran képp ku mën fatihi na nga fexe jàng ko balaay bés ba le 3 mars nga fexe ñu bokk ci liñ koy joxee hadiya moom Mawlana a Ibrahima radiyallahu anhu te tamit ñu xam ne ñu ngi teeru ku mag xalifa boo xam ne mooy xaadimul umma di Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim nga xam ne ñun ak moom yàllaa ñu boole te yàgg na bés bi bésam la képp ku ci ñëw rek na nga xam ne da nga yaakaar nangu ñaan ci làmmiñam bu tedd woowu kon baguñ kenn sëriñ daara yeeg borom alquran yi ñëpp kenn ku nekk daal ñu ngi leen cee ñëwoo rawatina nag ku mel ni sëñ Ousmane Dieng ak mboolem lu nekk ci gannaawam rawatina oustaz Aliou Ndaw ak lépp lu nekk ci gannaawam ak mboolem eh, eh, nooru eh, miftaawul wusul illa hadrati rasul ak mboolem ñu nekk seen gannaaw rawatina misabul erfan ak mboolem ñu nekk ci seen gannaaw ak li maanaam daayira bi nga xam ne mooy mooy daayira Baye Mbaara Sañaan ak fédération am waaye ñu ngi duñ fàtte mukk Idrissa Touré duñ fàtte sëñ Ousmane sëñ Ousmane Diop Dakar waaye daal buñ bëggee lim dañuy juum waaye ñu ngi wax ne daal képp koo xam ne yaa ngi bokk ci hadara Ousmane yu yaa ngi bokk ci hadara Hassani yu yaa ngi bokk ci hadara Ibrahima yu ñu bés bi sa bés la ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ko jàmm ànd ak tal kenn ku nekk lépp loo ca def rek yal na yàlla delloo la lu ko ëpp lépp li ci waaye dugal ci làmmeñ ci ñaan yal na ànd ak làmmeñu Mawlana Cheikh Ibrahima may la lijaaba képp ku ci dox yal na yàlla may la sa tànk tegu ci kaw tànk Mawlana Cheikh Ibrahima bu barkeel boobu nga xam ne fu mu dem yóbbu na fa njëriñ kon ñu ngi woote baa ngi noonu le 3 mars fële ca Mirina Baye quartier Daaru Rahmati dend ak këru gan e foofu mooy place ba le 3 février le 3 février lañ koy def incha la jiital woote bi nag ñi koy xoote mooy bustaanul aarifina numéro un bi nga xam ne Baye Ngom mooy président bi waaye Cheikh Baye Goutou mooy jawrin bi di ci woo ñëpp di leen wax ne daal ñëw leen ak jàmm na xoote bi nag xooteeb jafalaa lañ koy def xoote wuñ ko xooteeb naqalaa waaye xooteeb jafalaa la bàyyi wuñ kenn seeti wuñ képp ku kàddu gi yegg ci yow rek na nga xam ne bu doon leetar la mooy sa sa sa mooy sa invitation ñu ngi leen ceewoo di ñaan yàlla ñu fekkee ak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilah jërëjëf macha allah kon ku dégg woote boobu rek mboolem jullit yi ak mboolem koo xam ne mu ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dégg nañ woote bi képp koo xam ne bëgg nga jot ci may yàlla yi na nga ñëw ci bés boobu ndax xadimu si Assane Deme moom moo woote muy Baye Darame Thierno yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko mu ngi ciy woo ñëpp nag àdduna bi ñëpp kon na si ñëpp ñëw wuyu si ndax bisu ngëneel la te bisu sant yàlla la wa axiru daawana an rabbil alamin wa rahmatullah abonné si notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ ñu la bijil gëstu loo doon